Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbokk yi ma nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di balu ñëpp àq di bal ñëpp àq si korite bu ñu jógee di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam euh, ndaxte dañuy tooñante chaque jour maa ngi leen di jox ay secret ñu ngi euh, am na ñoo xam ñu ngi jëflante ñii mën leen tooñ si kaddu ñi mën naa leen tooñ si jëf kon maa ngi jégalu ñëpp. tay nag incha allah ma fas indil suratu yaasin suratu yaasin nga xam ne moom la yonent bi waxoon ne mooy xalbul quran lépp loo gis am na xol te xolu alquran mooy kon incha allah tey yaasin leen leen bëgg indil ay njëriñam fas ko tojal wax leen li ngeen si mën a def ba mën see jëriñu incha allah su ko defee rek ngeen déglu ñu ndaxte nekkul loo xamante ne nii maanaam benn mbir la ndaxte yaasin moom lépp la lépp lépp lépp la yaasin tënk benen bi itam balaa ñuy dugg ci secret bi dañuy ñaawlu euh, li xew Palestine Palestine ñëpp xam ne ne dafa bokk ci ñetteelu bërëb boo xam ne yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam euh, fi la rañaane yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam commencement diine ji doon jublu di julli dégg nga Palestine nekk terre sacrée maanaam muy ard, muy suuf boo xam ne suuf bu suuf bu suuf bu barke la Eh, dégg nga mu représenté lu bari ci diine l'islam kon nag euh, tey en tant que musulman euh, naqar naqar nañu suñu xol amuñu doole guñ ko mën a fajee wala ñi nga xam ne ñu ngi sax jiitu jiite ñu sax am na si ñoo xam ne sax dañoo faible mënuñoo sax génn wax wala ñu ñaawlu ko waaye ñun ñu ngi koy ñaawlu suñu xol ñu ngi koy ñaawlu suñu làmmeñ ñu ngi koy ñaawlu suñu bët ñu ngi koy ñaawlu suñu cër yépp te ñu ngi ñaan yàlla yàlla alak Israël yal na yàlla alag len yal na islam sa kaw a kaw a kaw kaw yal islam sa kaw Palestine gii yal na dem ba ba ba ba delu, si jullit ñi yal na ko jullit ñi mujjee te liñ leen di def yépp ñu yal na yalla alag ndaxte métti na trop si xol wala yal na delu Palestine jam ak kon secret bi yashin suratu yaasin yaasin mooy xalbu quran lépp lu doomi adima di jublu rek ci adina rek soxlo na si euh, yokute mo xam nga bëgg alal mo xam nga bëgg ay waruwaay yu rafet bëgg ay këri rafet bëgg am jaboot bëgg nekk ak jamm ak ki nga bëggantel ak loo mënti euh, yëngutu si adina muy liggéey li mënti do même bu dé liggéey la nga am sa entreprise wala sa place wala nga am sa kër nga fay jang bëtt bu set ñetti fatiha ak euh, tamit ñetti ixlaas ak ñetti suratu yaasin nga di fa jàng baax na su fekkee da nga nekk koo xam ne mënoo jàng am na ñu bëri ñoo xam ne mënuñoo jàng te am na si ñoo xam ne maa leen di dëggal sax buñ mënee di jàng suratu maanaam guddi nga koy def semaine bu ne nga koy def benn yoon baax na wala boo ko mënee def sa dund gi benn yoon baax na wala at mi benn yoon mooy nga taal juróom-ñaari sondel ñëpp xam ne ne yaasin juróom-ñaari mubin la am mubin boo yegg rek nga taal benn sondeel win booy yegg taal benn sondeel ba yaasin yëpp jeex su su ko defee xam nga yaasin bi day jeex fekk am nga juróom-ñaari mubin taal nga juróom-ñaari sondeel yi sondeel yi nag ruy yoo des si sondeel bi moom ngay jël nga def ko si siwo boo xam ne def nga si ndox nga sangoo ko su ko defee yàlla mën na si defal fiix ba pare itam nit ñi dañuy jàng yaasin mun nga jàng yaasin ba mu jeex si si si siwo ndox nga tëfli ko boo mënta jàng sootu yaasin nga bind ko nga ko la bindal sootu yaasin ba mu jeex nga def ko si ndox di ko sangoo dalay ubbi dalay ar dalay dimbali ci lu mënti nek lepp lo si jublu rek yalla la koy defal yaasin lo loo ci ni mom manam mom moom résumé la lo xam mom moom euh, doomu lu mu bëgg rek ko jublu si yaasin mais mubin yonal mubin bo ag bu la nexé ubul mi ni bo bindé surtout yaasin au complet bam jeex mubin bo yegg rek ubbi ko nga nga nga bind fa li nga li nga bëgg mo xam digënté bu neex la mo xam wërsëg la mo xam lu mënti doon nga def ko fa pare defloo saafara di ko rayo Lulus njëriñu yasin la ba paré tam bokay jang bo boo ak boy tëdd baxna jeng dégg ko mënta wax ni ko def mëno ko mëno nek di jang mais mën mën na ko bindal tay buñ la bindalee suratu yasin bam jeex mii mi nekk si yaasin yëpp nga ubbi ko mim bu nek rek nga def sa tour nga def yaq xaaru ci kaw def sa tour def li nga bëgg li nga bëgg na mëna nek alal mun naa nekk ay waruwaay mun naa nekk ay dëkkuwaay mun naa nekk lu ne en tout cas li nga bëgg daal def ko foofu noonu si mim yëpp sapay def ko saafara mun ngaa bëgg itam diggante bu neex comme si yaag sa jëkkër sapay def ko saafara nga di ko raayoo chaque jour moom tam dalay dimbale yaasin daal mooy xal bu quran lépp loo si jublu rek yàlla dala si dala si defar tawféex kon nag fonk leen ko yomb na mënoo koo jàng utal benn téléphone boo xam ne mu nga see enregistré yaasin nga di ko déglu chaque jour mu nekk sa biir xol bu dee nag mënoo koo tam bind ku kulo ku bindal dara da da ko da ko kii nga utiliser kon nag tey lii laa ne loon di leen ñaanal jàmm di leen wax ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah